alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. ñu ñaan yàlla ci bopp mbaam daje bi ñuy daje yàlla ko yàlla gërëm ni ñuy daje ci waxtaan ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ak Cheikh Talim Baye di waxtaan li nga xam ne dafa jëm ci taalib yi xandoo nag bàyyi jëmb bi dara xaw ma ñaan yàlla jotaay bi yàlla na ko yàlla nangu lépp loo sa xam ne fas nañ ko yàlla dimbale ñu ba nga ne ba xam ne yàlla dinañu dimbale ba duñ ci dugal dara dara lu xuuteeg li war a xam ci suñ digganteeg suñ borom ak suñ digganteeg suñ sëriñ ba woon a Cheikh Ibrahima ak Cheikh Saliou Mbengue Cheikh Saliou Mbengue mi xam ne moo sëñ fii ci 1944 ci ndigalal sëriñam moo war na Cheikh Ibrahima radiyallahu di jaamu yàlla di jàngale di liggéey siyaare sëriñam loolu moo doon liggéeyam ba yàlla soob ko mu toxalee ci alam bi yóbbu ko alam mu alxirati ñuy ñaan yàlla ñuy dundi gannaawam tegu ca yoon nga xam ne ca tegu woon am gërëm ba dajeeg yàlla yi suñu sëriñ mooy Mawlana Cheikh Ibrahima man ci tariixa Tijaan lañ ko fekk Alaaji Abdoulaye maam baayam ci tariixa yan la nekkoon gannaaw boo xamee ne ñu ngi ci lislaam juddu ci jàng ci liggéey ci yar ci ay doom yar ci ay jigéen yar ci ay góor yar ci ay jàmbur bu leen ci yàlla jox yàlla mu jox leen ko ñu jël tariixa Tijaan boole ci di ko doxal ñu ko tariixa bi bëggee ñu ngi leen di gërëm ci loolu waaye ñu ngi ciy gërëm yàlla mi leen ko jox waaye ñu ngi gërëm yàlla mi moo ñu dimbali bañ topp leen waa ne li nga xam ne dañu gëm yàlla seeni doom topp leen ca gëm yàlla dañ leen yégal ñoom doom yi ca bàyyi te dugal ci ay dara ñu yaakaar loolu ñu ngi yaakaar mbooleem taalib yi su ma ko wax nag ñaari nit lay wax ki nekk taalibe Baay ak ki ko sopp ñoom ñaari lay wax am na ñaar nag wax bii feek ba muy simati bu muy jeexee lépp nekk di ngir yàlla moom lay ñaan yàlla yéen ñoo ko seqal nag maa ngi maa ngi ñaan yàlla bu leen ci dégg dara bu leen ci gis dara bu leen ci tawil dara lépp na nekk Mawlana yàlla ak Mawlana Seex Ibrahima man maa ngi maa ngi wóoral daayiman di wax ne man taalibe Mawlana Seex Ibrahima laa te loolu duma ko bañ a wax fenn te wax naa ko ba tey sa Mawlana Seex Ibrahima mooy suñu tëriñ fii la seex sëriñ Mbaye oo man ak suñu mat toom mat dal na ko yàlla yërëm ak Modou Ndiaye mi nekkatoon nañu kaay leen dem Madina ci Baye mu jox leen wirdul tijaan moom joxul ñu ko de daf nañu kaay leen dem Madina ci Baye ñu dem fekk ma Madina ñu wax ko li nga xam ne moom lañu suñu Baye wax sëñ Ñas mu may ñu tariixa tijaan ñu di ko jëfandikoo di ko jëfandikoo ba moom mu di ñu jàngal fii karu jigéen ba suñu xale ba dëgër mu ne kaay leen dem Madina ci pirim bàyyi bàyyi piri leen alxuraan ba tey ñu ñëw Madina déglu ko mu firi ñu bàq la banaasi kon mooy suñu sëriñ ci tariixa bi mooy suñu sëriñ ci diine ji ndax al alxuraan ku ñu ko firil ba mu pare amut dara lu des ñu ngi gërëm yàlla di ko gërëm bi may dalee nag mooy Seex Sëriñ Bay Ñas moomu dafa teel ànd ak baay ñoo bokk baay de waaye yàlla ko booleeg baay jaarale ko ci baayam Alaaji Abdoulaye Ñas mu ànd ak moom bi El Hadj Abdoulaye di dem booba ndaw moom sëñ Mbaye sëñ bu kër moom bàyyi ñoom ñu bàyyi ndaw moom lépp rek loolu luñ wax waaye dañuy wax saal yi ba boo amee dégg nga xam li muy wax sëñ Mbaye seen na ànd ak lool ci ndimbalal yàlla ci mébét bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi muy bàyyi mooy suñu sëriñ walla yàlla yàlla yàlla mu mat Alfayda FM ko yi yi moo ko jox maqaama yi moo ko tëbb moo ko xéegal lépp moo ko defal moom yàlla mi ngi nettali moom bàyyi ci mbindam di wax ne waqat tama fat yi indal mahdi ba ma daanoo ci suuf te faraguñ ma keroog la sama maqaat bu mat moom moo ko wax waqat tama fat yi indal mahdi ba ma daanoo ci suuf te faraguñ ma boobu la sama maqaat bu mat fatu te moom moo ko waxal boppam te bu ko bu ko firee nga xam ne kii xam ne li muy mu ne ba ma daanu te faraguñ ma maqaama bi mat góor xaywu yi ñi nga xam ne ci yàlla rek lañuy dund am nañ jokkoo seen diggante ak xut bu mag bi mënuñoo def mukk te ak jëfalante bi moom xutb bi nag dëgg-dëgg ndey jaa nga màkka soo demee ci diggante ajurul aswad diggante maqam diggante xajul xajul aswad ak foofu nga xam ne mooy ruknu limaani te diggante ci ci ci ci gannaaw foofu foofu lay nekk xuddu mag waaye du jëmbatee dafa mel ni bu masaa la ko yow ndax nga mën koo dégg dafa mel ni saxu luq dafa mel ni li ñuy bi boo bëggee jàngi gàllada gàddaay da nga ko gas ba jot saxu maw ma wujj bi nga xam ne lu gën a sekk la kooku mooy buur bi fekk génne woo ko jànj bi noonu la xulf boobu mel waaye nag moom mooy tëbb xutb yi bi sëriñ bi wax bi Mawlana Seex di wax dafa wax ne waqat xanat jami wari jàll xay bi jame wari xay bi mu ne dañuy ñoom ñii di jóg penku ak xarfu ñi nekk ci xarfu ñu ngay jëm penku ñi penku ñu penku ñu ngay jëm xarfu ñoom ñëpp kat màkk lañ jëm xam nga lu ñu fóoteem dañuy seeti xut bu mag boobu fa rekk moom mu wax leen ne xut bi juddu na ma nga def rab sàngam fekk nag bàyyi wax ne màkk sama sama patu mag mat na te booba foroguñ ma góor yi xew yëpp xam nañu ne ki ko yoroon léegi toxu na dem naa laat nag te moom du laal suuf moom xuddu bi ana ko xamee ko la fu mu nekk te ñu balaa ñoo a toog gis ko ba seenteeg ko te ku ki nekk Màkka moo leen koy wax ñu dem ba Màkka ana ko ku nekk jaayanteeg moom mu ne leen ma nga Sénégal ca teebay yéen mm-hmm. te forooguñ ko boobu ñoom ñu bàyyi ko fa jëm ci teebay yéen ba ñëwee jaayanteeg moom fa maa xattamom fi sharqi wal xat bi fatfatan illa makkata illa li sami sajaay góor ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi dog mandi ngi ñuy jëm xarfu ñuy jëm feetu xamul li sama ban bi la ñuy fóoni fan laa wàccee ci xaalam bi bañ jëbal ma seen mbir mu doxaleen maa ko wax moom moom seebla kon nag sëriñ boobu mooy suñu sëriñ laa wax man de mooy suma sëriñ ak képp ku bëgg jaawale ko kenn amale wu ma ko kenn du jabar du doom du xarit du am di jàmm dëggandoo ta te ku wuteeg man ci moom rek ma bala yow yow laay ba nit dafay xam lu koy jariñ alaaji yaay yaay moo daaw yàlla ko yàlla bi nekkoon comme Baye waxoon sama jox ma jox ma ndigal ma di ko sàkku di ko maa ngi dem Medina moom soo demee ba nga ne Baye nga ne ko ku la joxe bëtam fam la xooloo fi nga war a xool ñu continuer ci loolu ba Baye teel naa jàngale ñaar fukki at rek la am bind téere bi ñuy wax uh, ruulatak ñaar fukki at bi ko sëriñ a jàng xam-xam sëriñ bay boobu jàngagut xam-xam ndaxte ba nga doon jàngal ko bi bàyyi mu ba ko mu mu ñëw na bàyyi ko damaa bëgg jàng xam-xam boobu nekk di kenn sañu ko lu mooy xaj njaa jàngal ko te loolu problème la bàyyi ne ko nañ demoon ca xalifa mu ne ko man ci yàlla yoon moo ko waaye yoon sëñ bañ ne ko comme nangoo maa jàngal damay toog réer bañ a jàng ba bu ñu demee àllaaxira ca kanam yàlla alaaji Abdoulaye ma wax ne yow laa bëggoon nga jàngal ma jàngaloo ma comme noonu la nag bi ñu ñu ñu jàngal loolu ci fekk ñu jël xam nga lu xam nga kooku boobu seen tentu na ci bi loolu amee tey nag maa ngi leen di wax ay taarix yu am solo bu leen neexee ngeen gëm ko tu leen neexee ngeen fàtte ko waaye jotaay tey bii bokkut ak jotaay de Alfayda FM bi loolu amee nag mu di ko jàngal du ko jàngal ba yàlla def bàyyi yàlla hubbi ko benn hubbi mooy dafa war a am maarifatu billaahi te mi ngi dox ci góor yi tamati an dayoon na ko ne fayu dana ñëw ci xeetam ci ci tarixam gannaawam ci jamono boo xam ne bu diis lay doon bu naqari ñu bëri noonu lañ néeglu fee wax jooju ndax de jàng nañ ko ci téere yi te gisaguñ ko loolu moo tax bu ko bàyyi xootee ñi xamoon ni yëpp gaaw gaaw jëm ñoon Nigeria gi li li ma gis bàyyi xubbi ko dafa jot ci kanam yu mag yi ku jotoon sama tijaan li ma wax wax yooyu ñu toog di nekk di ko di ko muñal ba ba bañ gis ne bàyyi xotti la ko waaye ba mu fay dem 37 booba booba juróomi juróomi juróomi téere yóbbu ci kàtt dal baas ñoom bañ ko yéree xam ne kii moo xam ne xam bi bi loolu amee nag bi bàyyi xoote keroog ne moo xam ma xam bi si awat bi bi feeñu bi keroog bay xalifa moo gàmm ba bët set te bàyyi bokkoon na ci taabal ci ñi nga xam ne dañuy way xam ngeen loolu bokk ci ñi nga xam ne dañoo sëkk taabal ji di way xalifa ki nga xam ne mooy seen tëñ di seen bàyyi di seen mag moo doon gàmm bu ñu suma rek ba pare bàyyi ne taxaw ne moom mooy xalifa Cheikh Ahmad Tidiane képp ku bëgg ci loolu ma xaw mën a yow keroog seen sëriñ Mbaye moo jóg taxaw ni ko man la moom kenn rek rek rek ndaxte boobu mu ngi mel ni su bàyyi gàmmoon ba bët set benn gone taxaw ci gone yi wax loolu ak ci mbooloo baay bi ni mu bëree nattale ko foofu yàlla def ma ànd ak bàyyi ànd ak bàyyi événement yi yëpp yëpp yëpp ci kanam la faylu bi fi comme la juddoo moo si njëkk a jàpp moom sëñ Mbaye moo wax ne Baye moom moo njëkk a àgg ci yàlla Baye wax Baye ba mu koy wàccee ba mu ni mu wàccee sëñ Mbaye lii lan la te la yàlla wàccee woon mu yonte yàlla Moussa daf ko wéegal ba Moussa xamatul bu fàttali lépp ba jeex takk yàlla nag boo ko delloo ci xaalam mu naasut ne ko Moussa Moussa wa maa tilka bi yaminika yaa Moussa da ko bëgg a si Moussa dura xam ne mu ngi ci beneen xaalam bi léegi mu ngi ci xaalam mu naasuwat mu ne ko eh, ma eh, mu ne ko hiya wa ahussu bihaa alaa ganami benn laaj la ko laaj kat lu nekk ci daf ko neex ba tontu li bëri hiya hasaaya atawakkalu alayhaa wa ahussu bihaa alaa ganami wala fi amaari uxra moom laajuñ ko waaye fi mu ne nii dafa jógee ci xaalamu ba nga xam ne mm, amul dara amu fa dafa am loo xam ne ak li waxtaan lu ñax ne duñ caag waaye nag am na ci benn benn yi ñoo xam ne la xawoon ci yonent yàlla Suleymaan am na ci mbooloo mi yonent yàlla Suleymaan moom la yàlla joxoon ndimbal muy wax ak ñëpp jinne yi doomu aadama yi ak ñëpp nag waaye ba hudhudu Moussa Ndioubri mi ngay dégg Moussa Ndioubri picc mi yow Moussa Ndioubri muy hudhudu Moussa Moussa yonent Yàlla dafay wax seytaane yi ñu andi ay ay moket loo xam ne tal ñu lal ko ñu tokki ñu di toog yi tokki mu lal ci kangu naam gi moom ak junney ngu kanam ñu tokki kaw mu ne seytaane na na jóg seytaane mooy mooy ron sa sa sa sa yëkkati ko ba sa kaw ko yëkkatee ba sa kaw mu ne ngelaw na dem moom la yàlla wax ne xuddu waa sarun wara waa sarun xëy ba doxam weer la ngont la doxam weer la yonent yàlla Suleymaan moom la def na waaye terewul nag Muusaa yonent yàlla itam boobu nga xam ne mooy yonent yàlla Suleymaan ba yàlla defee ci ci dogalam mu Suleymaan picc mi yoo ci xulub ba moom la ñoo xulub ba ci coolof ci ñun ba mu ne fam fam fam fam nekkoon génn ba te picc yi dañuy tàgg ci kawam ba nga la ba ba ba naa jot mosaan yu buri nag bi mu demee bën bën boobu mu nekkoon fala naaj bi dugg baax si Souleymane Souleymane téye na waaw ana Moussa ana Moussa ana mu Moussa ñu buri ne ko mu ne baax su ñëwee naa ko wóor wala mu rend ko wala mu wax lu daan yu bëri nag réew naaw ba àgg ci réew mi ñuy wax réewum Subay boo boo yonent Yàlla Suleymaan mu am moom moom lépp de ba àgg Subay Subay ñu jigéen a ko moomoon bu ñuy wax Balxiis ba ci Suleymaan Suleymaan xëcc ko ne ko xëcc ko ba mu toog ba mu Alfayda FM Moussa ñu bëri ne ko moom mooy buur bi de waaye Moussa ñu bëri ne ko ragalal Yàlla mi nga xam ne moom moo ma def moom ma def may sa sa sa mu bàyyi ko mu waxal ko yoonam ba pare ba ba yoon sotti bu loolu amee nag su fekkee nag da may déglu nag ma wax de wax ci waaye su ngeen ko dugal dugal dugalee ma tëj bi dafay dog xam ngeen ma tëj man waxuma de waaye kii wax nag ci sama làmmiñ bu mu bu mu bu coow lu bëree rek mu mu dox doo ngi sax man dootuma xam ne may afara yéen a ngi ci pays bii pays sax tey Mbaye Niass la pays Alaaji Birama Niass la pays Alaaji Abdoulaye la pays Cheikh Ahmad Tijaan la pays yonent Yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam te loolu mooy pays yàlla maa ngi wax ak yéen nag tey may wax ak yéen nii ci yàlla rek laay wax Hmm. bi loolu xamee nag daf ne ko nag kooku nag ku amee gàngunaay gu foor la gu mag loolu ko Moussa ñu di wax te Souleymane bëgg na mu ñëw mu xam ne bu ñëwee du ko mën a tàj ci suuf te mënta toog a bokk ak moom gàngunaay mi mu ne ayyukum yaatini bi arshihaa qabla an yaati Musa Musa Musa ñu bëgg dana wax ne Bilqis mu ngi ñëw kan moom ay indil gàngu gu mag googu balaa agsi qaala yaa ifriitu mina al benn mbërëm junne toog na ko ana aatika bihi qabla an taquma min maqaamika dina naa la ko indil balaa ngaa jóg fii ngay xàttee insha allah man naa ko loolu yàgg naa moom benn góor ci góor yàlla yu jóg ne ko an naatika bii xabla an narsa ilayka tarfuka man boo xëfee ba nga xëpp rek ma tëba teewal ko gangu naa ngi ci yow tëba say man ko xëpp rek gangu naa ngi teew loolu ba tey mi ngi ci góor ñi am na ku indi mbooloo waaye am na ku ci nekk boo xam ne am na lu amee kon su ma leen di fëkkaloo yàlla waaye bàyyi nag ñi ma àndatoon Seex Sëriñ Mbay moo ci jiitu wax naa leen ne moom moo njëkk xam yàlla ci ñi àndatoon moom ci saaye ci li ñu xam ci li ñu xam yàlla moo xam waaye am na xamu xatam ñu àndatoon Alfayda FM Seex Sëriñ Mbay ca bokk moo ko jiite alaaji ma abdu ñang ci seeba ñangeen moom moo daan wax ne suñu naan ci bàyyi du siggi sa xool suñu suñu suñu ñi demee rek ni ñaan ay bàyyi ko dafa tey mu ne ah, moom moom du xool bàyyi bokk na ci Seex Mutu bokk na ci sa yàllu Siise bi sa yàllu Siise ba maam ba alaaji Abdoulaye demee Coro la ko indi ba mu ñëwee bi gannaaw alaay bi laay àddina nekk na sax ci kër ga mënta génn lu bëri man maraama siise ki nga xam ne mooy mbokkam mu ko jëlee ci kër alaay bi laay boobu boobu ba kay mooy kalifa bi indi ko ci bàyyi mu ñëw yàlla dajale ko Seex Sëriñ Baye ñu bëggante lool mu topp ko comme sëriñ topp ko mu koy taalif te ñoom ñëpp ñoom bokkaan ci ci bàyyi bokk na ci Cheikh Oumar Touré bokk na ci Cheikh Ibrahima Fall bokk na ci Alaaji juróom benn lañ ñooñu nag ma ne taal taal bi bàyyi taaloon ñoom ñoo doon mbos yi xam ngeen mbos yi ñuy teg ci li ba togg woosu yooyu mooy sëñ Mbaye Niass sëñ Aliou Cissé sax mu tudd dañu rafet waxte ne ak ah ak sëñ Ousmane ñoom ku ci teg sa cin di togg da nga sottal da nga leen na xamu ko waaye pay bii Alaaji Ibrahima Niass moo ko moom ñëpp ku ñuy topp moo tax ku ñuy raamal moo tax ku ñuy sukkal moo tax ku ñuy wax ku ñuy déglu ci wax yi moo tax na ko ñëpp xormaal na ko ñëpp topp na ko ñëpp ja na ko ñëpp xool na ko ñëpp déglu fekk ñu ngi def loolu jàmm rek ay xaw suñ ko deful man xamatuma ci dara baraam alay alay gi nga baraam nit kenn du sëriñam lu ma bàyyi wax naa ne wax naa jaar maa leen di woon ak yéen ñëpp yéen ñëpp yéen ñëpp ngeen bëgg gëm bàyyi liggéeyal ko woote ko ku la gën a gëm bàyyi ku la ko gën a liggéeyal rek moo la gën a jariñ latina xadama latina xadamoo ni naalu muraadaw ñi nga xam ne ñooma ñooma liggéeyal jot nañ seen tekkute bàyyi ko latina xadamoo xadamoo ni naalu muraadaw Alfayda FM te jot sa tekkute fi lay fi yam kon nag ñoom ñooñu ci kóoti bàyyi doon na fa dem boobu xalifa mooy sëriñ bi ñooñu xalifa ma tool bàyyi moo doon jëwriñ yi su bàyyi demee di boy ca tool ba ànd ak taalibe yi xalifa yi boobu mi ak mu am tool moom bàyyi taalibe yom yi ñoo ko bayal pour gàttal ko nag benn bés sëñ bàyyi sëñ ko ndax sëñ benn benn bés dañ doon bool ci bay ci tool bi ñu bay ba naaj bi tàng ah Sénégal utilisé xam ci biir waay ñu jël ko sotti ko ndox yóbbu ko ci kër Cheikh Omar mu ne bàyyi Cheikh Omar mu ne bi ma bi sama yaram bi def fet fet fet mu mel ni sànqale yi ci nekk ma xam li dal Sénégal yu su ma jógul dal naa ma daal ma jóg te dem dongante kër kër bàyyi te dañuy dem wala toog te sëriñ dafa bay ba tànk yi di fut ñoo ko bàyyi bàyyi na daf ko jaarul ci suuf su ko jaaroon ci suuf rii jikko dana jël bàq bi te bon tànkam yu duut loolu wax baay baay mooy seen tëriñ ñooñu dama bëgg ngeen xam ne baay mooy seen tëriñ ku jaar moom ci foofu ci mbay bu moo leen di jàngal benn bés mu ne moom baay dafa dem ñoom dañoo ci tool ba di bay moom mu indi daa xalibaam ci doon kër ga bi wàcc jotat mu wëlif kitaabu tasif moom mu leen maa ngeen ku ci yàq fay moom moo walif kitaabu tartiib ci bés ci bés bila laa moo tax moom dafay wax ne kitaabu tartiib moo ko bind ci bés waaye matul bés ndax dañoo ci doole di liggéey bi ñu wàccee moom bindu ko loolu matul bés foofu la foofu la di ko bayal di ko liggéeyal di ko sonnal di tërbiyee taalibe yi di nagale ci yàlla góor ak di ko siyaare moom moom ñoo ngi moom bee bés jëmmi bés sëñ bàyyi ne sëñ bàyyi ne ko yàlla nag paasaloon na la nga topp wenn waar ñu dala bayal léegi da ngay tasaare taay bi kenn ku nekk dem ci dëkk dafa bayal di la bayal doon mu ne ba nga koy wax sax boobu soo xamoon ne moom mooy njëkk géen du ko wax moom sëñ Mbaye ñu xebal ko laabaram gi am na fi juróom-ñeenti at di bay di bayal baax zone loolu moo indi woon initiative bu njëkk bi xam ne ci lañ njëkk a tasaare taalibe yi initiative boobu sëriñ bay def ma ko wax mooy mu badara benn jàpp initiative ñese ñëpp ñoo nekkoon ci kër baay ci kër kër Alaaji Abdoulaye juróomi juróomi juróomi juróomi benn bés sëriñ bay ne woon xajatuñ ci juróom fukki mètre yii ñu nekk laa la jëbale léegi foog ñu uti benn place boo xam ne moo gën a Alfayda FM moo waroon mu dem Medina gii sëñ Mbaye Niass ci ndigalal Baye Baye xebal ko mu dem gis Cheikh Thiafouk wan moom mu ñëw keroog ba mu ba ko bàyyi si bëggee seeti fi mu xam ne fu la moom la joofa Cheikh Thiafouk ki nekkoon joofa dogal sëñ Mbaye Niass moo ne ànd ñi àndoon ak sëñ Mbaye ñu war ko fekk boobu dafa yónni lañ bay ki pétin la leen ci ku fa gaañu woon moo tax fekkewutoon bis boobu bañ demee ba àgg nag bàyyi moo jàpp kër gi sëñ bay nekk néegi sëñ bay moo jàpp kër bàyyi gi boobu nag euh, benn son moo fa nekk kër bàyyi son benn son ñu nekk ci loolu baatara mu baatara boobu sëriñ Baye Niass moo ko def muy ñaari mubadara mubadara mooy initiative ñu dem ba nga xam ne tubaab yi waxoon nañ ko mu mu dafa war a dindi garab yi nga xam ne moo nekk ci Taïba Niassène woon liggéey ndax loolu dañ ko war a fay dañoo war fay lu bëri pour mën ko dindi mooy santaane liggéey jox ko mu xatal mag yi sëriñ Baye Niass fekk na boobu balaa imaam bi toog na jëm na Ababacar balaa imaam bi atam mi ngi génne àddina atam bi muy dem Conakry ci réew la Conakry ba soo ma nu wax ni yëpp te mu man tegu ma ko fi yàlla ko fi teg te mu ne lu Aboubacar ma woon li yonent ma woon wax ci Aboubacar mën naa ko wax ci Aboubacar mii moom an aarifa al hawaa fa saata fa xalban xaaliyan tamakkara mbëggeel ak sëñ Beñes moo ma dikkal ataani hawa wa qabla an boo xamaguma sax luy mbëggeel mu ñëw fekk ci mu xag ci xol boo xam ne fekku fa dara lu ma yàlla rek mu dugg toog foofu te mu ne sëñ Beñes mi mosu ko ngonewoo pour def ma lu ma naqari waaye wax ma naqari moo ko wax ci ba mu nii sëñ Baye ànd ak moo ànd woo xam ne bu rafet la wax na ko ci benn bés ci siyaare ne ko man de ku ma jiite woon te jiite woo ma ci yàlla su ma la waxul dara doolu topp kooku mu yàlla moom te ki na ko xam nañ ne du woo yàlla yow moom moom sëriñ Baye mooy xam nañ ne du woo yàlla waaye yàlla mën naa fay soxla ci yow kon nag maa ngi leen di xoo yéen mboolem taal bi ñëpp ci lañ bokk soxna yi jabar yi doom yi ñëpp ci lañ bokk waaye li gën a am solo mooy ñaari yëf taalibe mbaa sopp Alfayda moom moo wax ne wa man yuhibbunii wa man yaraanii wa man yuhibbunii wa man yaraanii ku ma dugg ku ma bëgg man ku ma xool gis ma fi jëletal xuldi bi laa buxtaani kooku mu ngi caatale xal jannaay béel waaw lu tax mu wax ko nag ci jamono ji te jamono yoo xam ne am na ñoo xam ne dañ ko weddi waaye la yàlla lu yonentu waxoon xam nga yonentu ku koo gis da tere waaye boobu Abu Jahl moom te terewut maqaama bi lañ wax maqaama bi lañ wax bàyyi ku ko gis ci maqaama ba rek da nga tere ku ko gis ci lu dul maqaama la yaa waaye koo gis koo xool ci maqaamam bi kon da xam ne maa ngi leen di woo jaar naag ñii ñii mu ay taalibeem banaa banaa wax naa leen tuuti ci taalibeem yi déglu ko li ma la wax te gannaaw ba tey mooy da ay taalibeem rek la ku ko ku ci bokk bokk nga ci ku ci bokkul bokkoo ci man nag kabaraham ñas simple benn talibé benn baykat mm, duma dara ku nekk xam na loolu man baykat la talibé dara laa waaye nag yàlla may na ma sansu ma nekk Cheikh Sëriñ Mbaye Cheikh Sëriñ Mbaye di talibé bu mag te doom yàlla mën na koy def teraanga ci baayam su fekkee ma nga topp baayam su fekkee ma nga ko topp bi sëñ Mbaye génne àddina bàyyi ñëw joxe ndigal jox ma ndigal man xanaa kay dama kenn xamul lu ma doon kenn xamul lu ma doon waaye jéem am teggin ak ragal moo tax antaar yi ma leen di wax ñun ñëpp ko seq waaye xam nañu ko war a déggante am nañu ko war a déggante wax jaa ngi fi band yaa ngi fi bàyyaa fi dafa wax ne Baraam Jóob ndax tëriñ bay maa leen bindal ansaar bi noonu def naa ne wax naa waaj waaj ñi ne ko kaam rajo bi fexeel ba nit ñi dégg loolu yaakaar naa ñu ngi koy dégg nag dama bëgg ngeen xormal képp képp képp ku bëgg bàyyi ak képp koo xam ne taalib yoon ngeen waaye ngeen xormalante yéen seen bopp kenn ku nekk nañ ko jox gëddaam waaye ñii nga xam ne ñoom laa wax ne ñooy maqalam yu mag yi liggéeyal bàyyi ca tool ya bañ nekkee ci tool yu bay di ko siyaare di ko bayal tool di ko topp di tëbb taalibe yi di leen àggale ci yàlla di leen réglé di leen delloo si ñuy dem di Alfayda FM xormaale leen ñooñu te dañ bokk de xormaale leen yi xormaale leen yi taalibe yi nañu xormaalaante ñu dina bokk man loolu laa leen di baax man nag kii loolu laa nekk koo xam ne dangaa bëggoon bàyyi man su ma la gisee def na koo xam ne ku bëggoon bàyyi waaye dama wax ne àgg nañ ci taalibe bi foo xam ne koo nekkoon yow duwoo taalibe sax moom daf lay ree moom xam ne moom taalibe nit benn taalibe bi àgg ci boole saahir ak baatin tëbbu tëbbee di jàngale di roy sëriñam di ko siyaare di ko liggéeyal kooku da ngay werante am taal bi du am du taal bi mu boo jotee nit mere ko nag nga ne ko doo taal bi na ko doo dana ko dana teyoon taal bi wala sooy jaay say ba pare nga ne sa na ñuy jënd ko loolu mën naa tax loolu mën naa tax te yoon wa ci ñi ñi ñi may nekkatuñ fi seen doom yi fi nekk mu ngi mel ni man mi xam nga sëñ bay nekkatuñ waaye man maa ngi doom naa maa ngi nekk doomam te bàyyi dafa ñëw ci bëccëg lalab sëñ bay ñes bisu àllar ba keroog dafa maa wax ci midi ne ma ah, demal ci tënañaa liw ne ko mu jàpp bés ne ko dañu war a dem kër mu jigéen ma dem tënañaa liw jàpp bés ma wax ko ko bés boobu dugul bésab sëriñ demal nga ne ko mu jàpp bésab sëriñ du ko def xalar ba boobu mooy sëriñ mooy bésab sëriñ ma delluwaat ci sëriñ wax ko ko mu ne wax na dama nañ ko jàpp xalar ba xalar bi lay ñëw fii jox ma la wax ma wax ne wax ne ci biir ci biir ndigal ne lii ma def nii duñ yi seex sëriñ bañ mu ngi ci bànn yi waaye nag maa ngi teg maa ngi maa ngi lu ci teggi noo man fanweeri yaat ak juróom ci ren jii maa ngi wax naan nañ def lii ma Ibrahima wax nañ def li Mawlana wax nañ def li ba naa sa wax ñu indi leneen di indi leneen di indi leneen dara du ci sotti maa ko wax man xam naa li am ko man xam naa ne yàlla dunduloo Mawlana Cheikh Ibrahim ci waxam ci péyam ci xam-xamam ci wilaayam ci darajaam di di di di sagal keneen loolu mënta am maa ngi ñaan yàlla nag lii may def ma leen dajalee nii nga def ma damaa xëy rek dajalee du du loolu jàng naa ci juróom juróom man seen daje bi ngeen di fi jàng naa ci maa ngi ci maa ngi ci mm, tur yàlla bu ñuy wax salaatu ala nabi million xam nga loo bëgg mën nañ topp bay Alfayda FM suñ ma tëddalee daal fekk ñëpp taalibe yëpp góor jigéen ñëpp banañ li newoon ku nekk ngi nekk def leen ñu ne to nañ topp bàyyi ñoo nuñ koy toppee ñoo def li mu waxoon ñoo lu mu waxoon ñu ne fa kayit bii la ko waxee ñoo ko jàngal ma dégg mu indi ba mbaraam yóbbu mu jàng ko ba lii la bàyyi wax na nañ ko topp mu ne ñu ne nii la ñuy def keroog bu ñu ko defee ma wax ne nañ ubbi benn benn benn compte boo xam ne ci banque bu leen neex ñu ubbi man nag bu ma ko defee ci banque soo soo di Sénégal laa ko ubbi woon suñ ko waxoon nañ def nañ ubbi ci sofi antaaru diini ci turu antaaru diini juróom benn yi di moo xalam yu bàyyi ñooñu def benn euh, commission boo xam ne dañuy signé ubbi compte bi na taal bi yëpp na ñëw kenn ku nekk na joxe ñaari téeméeri dërëm jigéen na joxe téeméeri dërëm balaa ñu àgg ci euh, saabaan man danaa fi tajale téeméeri milliard man te ci bàyyi rek la ko dajee te dama wax ne kenn ku nekk na joxe ñaar téeméer bu kenn weesu loolu mi ngi am bindukat bi wax na ne bàyyi am na ci taalibe téeméeri million ak juróom-ñetti fukki million fi mu ne seen naa bàyyi tudd xaalis waaye dafa ma dafa bëgg taalibe ñu xam niñ toll soppi yi na xam niñ toll mbooloo mu mel noonu nag soo leen bëggee takk foog nga laaj lu mu bon bon ñaar lu dara di ma nañ ko def nag kenn ku ne def ñaar téeméer ñu bind ne diw la diw la su baree danañ xam ne téeméeri juróom gi nga million ba nit bu nekk maanaam junne taal junne nit bu nekk mooy dajale benn million benn milliard benn million benn million te nit bu nekk milliard million bu nit dana dajale milliard ci ñaata ci ñaata bi ñaata amee nag juróom benn fukki million maanaam juróom benn fukki million ci am nga juróom benn fukki milliard soo amee téeméeri million am nga téeméeri milliard soo amee am nga téeméeri milliard ak juróom-ñett fukki milliard loolu gën loolu laay wax gën a yomb kenn du ci sonn kenn du ci fatigué waaye dañuy toog fii naan suñu nañ dajee yi Dakar wàcc nañ barke bi seen gannaaw bu yàgg fekk ñu ngi daje Dakar Madina daje Dakar ñu dem di waxtaan ci Dakar julaay ci Madina dara du sotti maanaam ko wax dara du sotti barke baa ngi Madina barke baa ngi Madina dellutel Madina leen ci béréb bi toog leen fi leen neex waxtaanee lu jëm ci Baay waxtaan lu jëm ci taalibe bi dañ ci leen li ngeen dañ ci leen li bëgg fàtte leen seen bopp indi leen Baay toppatoo leen muqaddamam yi njëkkee leen yi xool leen taalibe yi ku ne ñaata mi lay def ubbi ci antaaru diini moo koy moom taxaw leen koo xam ne mooy doon njiital antaaru diini antaaru diini du tarika du tarika du tarika ñaata la wax maa ngi leen koy firi laa déw tarika tarika mooy nit ki li muy liggéey ba fagu ko ba xam ko moom moo ko moom bu dee lam loolu mooy tarika su boobaa borom xam-xam yi ñu ngi koy tënkee tëdduum bu njëkk bi luñ ko xewee luñ ko sàngee luñ gasee pax yi luñ ko suuree fer yooyu mooy jiitu ci alal jooju tëdduum bu ñaara bi tëdduum del gi mooy déynu lañuy bori la ñuy ba bari yeex waaw bi mooy boosi dénkaane bi li nañ ko def ñu laajtaan lu mu dénkaane bi ñoo nangam bu ëpp bu ëpp léegi yi nag su rombee ñetti su xaaj bi doxee ñetti ñetti xaaj dénkaane yi ñu soog ko ëpp na ëpp na benn xaaj bu weexee doole ñu bañ waaye ñun ci loolu ñu xam de li tarika bi bii nag Ansaaru Diine du tarika faylu bi du tarika man maa leen ko wax man nag dama amee ndigal ci waxtu noonu ah, maa amee ndigal ci Alaaji Ibrahima maa ngi ci ñeseen taalibe la doomi Seex Ture Mbeer la baatab taalibe yi fi ne ci ci saahir maa ko xamee man te su ma xeebee it maa ko xamee ndaxte ku luxut ku wutu lëf ñu jox ko àtteem ku wutu lëf ñu jox ko àtteem ku wutu lëf ñu jox ko àtteem man nag waxuma dara waaye leen def li Mawlana Cheikh wax ñu noppalu man bu ñu lu ñu wax rek ma ne lii su ñëpp bayee liñ def ñëpp bayee liñ nekk ñu dikk rek na anam ni mu bàyyi ñu ne kayit baa ngi nii baram dama jàngal moom baram jóob jàng ñu dégg ñu ne ah lay war def kat muqaddam bu nekk ñu jox ko ndigal mu wax ay taalibeem loolu ñu ubbi compte ñu ñu dafa def kenn ku ne ñaar téeméer benn yoon ci at ñaar téeméer di dem benn yoon ci loolu bëri na jigéen téeméer nañu toog fii rek dootoo dem fenn dañoo la wutal doomi bàyyi ay kër ñu dëkkee ko kenn ku ne jël tooxal la kër gu baa jëndal la oto jëndal defal la sa buur maa ko wax mu ngi sama téere bi am am nu mu leen jox waaye fi mu ne nii ñi ngi tasaaroo ñi ngi wëndeeloo ñi ngi wut dara ku def daayira sax doom yi jigéen yëpp tasee nga di leen jox tuuti kii ñaari dërëm kii fukki dërëm kii tamit loolu jaaduwul ma ne ak bi yonent waxee sax. Alfayda FM yonent yi jaaduwul yëpp dañoo wax ne laa as'alukum alayhi ajran laajuma leen ci indi gi nga leen indil diine dara ilal mawaddata fil qurbaa lu mooy mbëggeel ci lay naale kon nag suñ toppatoo woon yi def kaas def doomi baay yëpp kenn ko ñu jox la kër jox la soldu bu mat ñu féetoo jàng ak jàngale xubbi néeg baay bii du ci dugg taalib yi du ci saare ñu dem ci xeet gi di ko jiite ñëw ci ñëw ci gàmmu gi di di di lal onze di di di di ba bët set loolu taal yi bëgg man loolu laa bëgg xaw ma taal yi waaye mënu laa gëm loolu def nag te nagam benn taal bu nekk solo mooy def lii kenn mën na ko kenn mën na ko man nag damay wax dëgg rek man taal bi dara laa ku ne waaw amaana yow kooku waaw ma dem béy ci tool sama tool sama tool mu góob ba pare bojj ko di lekk tàngal sama daal ji man ko dama bëggoon dara toogal ma jox la téeméeri milliards léegi léegi léegi léegi tool rek borom kër mooy joxe dépasse mooy xañu jël waaye jëw din mooy jiite liggéey du dégg loolu borom kër mooy joxe xañ mooy joxe njël ñu lekk waaye jëw din mooy jiite liggéey su borom kër ba xëy na nag moom mooy mooy jiite liggéey bi du sotti du sotti bu jëw din ji toogee rek du dem fenn na ñoom doomi Mawlana Cheikh Ibrahima nañ toog ñooy suñuy sëriñ waaye duñ leneen lu mooy doon nañ toog ñu leen xoolee bàyyi nañ jàng nañ jàngale nañ yar taalibe ci ci façon boo xam ne dañuy jaar ci muqaddam yi duñ jógal seen bopp def direct ci muqaddam yi duñ def loolu de dañuy dañuy jaar ci muqaddam yi muqaddam yi ñaar ñaar taalibe yi ñoom suñ soxlaa fekk leen foofu luñ bëgg ñu def ko ñuy ñuy firi alxuraan ñu jàng di gàmmu di di di jiite xeet gi di yéeg ci minbar bi xutba dugg ci néegu baay bi dindi tribune bii ñu def ñu bind na tribune bi wax wax naa ñu ko ci ma dina baaxul tur bi mu baaxut xam nga man bu ngeen ma gisee may wax ni dafa mel waa ji du nit wala xamul dara wala wala dafa xam dafa ñeme xam nga dafay xaru waaye damay wax dëgg damay wax dëgg tëti bim bi nañ ko toj bàyyi bi léfi nañ léfi desoon ci bàyyi nañ ko toj waaye te wax ko turum bi ba mu tolloo sama kër googu bu bàyyi génnee néegam du gis sax jumaa ji su nekkee ci jumaa ji du gis sax jumaa ji euh, euh, néegam loolu baaxut. am fay xam ku ko doon tabax ak ku ko doon préparer waaye ki ko doon def xamut te xamut te setantalu nag kilifa yi ñoo ko waroon ne ko lii ngay def nii doom nañ xubbi néeg bàyyi ñëpp ñenoo moom taal bi di ko sare waaye lu ko moy ak loo foor foor foor boo doonee doon bàyyi fekk xubbi néeg bàyyi nga dugg ci yaa ngi mel ni góone gu nekk góone ko démb say xarit rek ngay am say xarit nag say xarit yi sa taalibe bàyyi soo leen liggéeylooyee nga ne yaa ngi liggéeyloo taalibe bàyyi ba ci leen rek ñu ci biir taalibe yi mu xam ne nañ jiitu ji liggéey liggéeyal doomi bàyyi di liggéeyal yàlla ngir yàlla dëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm ne ñooy àddina bi yëpp wekk leen ñëpp topp leen kenn du yëpp waa Medina kenn du leen xamal sax waaye du du loolu dañuy yëngatu ci loo xam ne nit ñi dañuy wax ne xanaa nit ñi dañoo xamul nit ñi dañoo xamul parce que lii du tariqa man nag maa ngi wax suma ko suma wax ji xaw ma kañ lay dem waaye yaakaar naa ne bëreetul lu ci des ndaxte ku bëri dana lu tuuti ku jël lu bëri dana lu tuuti maa ngi wax ngir yàlla maa ngi wax ngir yàlla maa ngi wax ngir yàlla ñaar téeméer tegal ñaar téeméer ma teg ñaar téeméer million bu million bu nekk un milliard téeméeri million téeméeri milliard fekk balaa ñoo àgg bu bu bu congrès bi jotee bu vingt-deux mun na mën a xawma ñaar fukki fan ak ñeent ci baraw la ñaar fukki fan ak ñeent ci baraw la ñaar fukki mën a ñaar ci baraloo taalibe bi yëpp ñu wax leen ne nañ teg ku nekk yaay tamit ñu am léegi léegi léegi téeméeri milliard léegi léegi téeméeri milliard loolu te bu ñuy dajee nañ dajee Madina waaye bu ñu dem Dakar xutu bu ñu Dakar dara barke barke baa ngi Madina barke baa ngi Madina maa ko wax man Ibrahima mii nga xam ne mi ni dof laa waaye waaye dëgg laa indi woon barke baa ngi Madina bàyyi moom Alaaji Ibrahima yi mu ne Seydina Aliyu moo doon saabu si yonent bi ku nekk xam nañ ko julli da xam nañ ko Seydina Aliyu yonent na woon man may dëkkab xam-xam Ali Aliyu mooy bunt bi xeex na ba tey dëggee na yonent bi tey waaye bàyyi mu ne gannaaw yonent bi moom dafa dem bay Madina dëkk ko fa moo tax li ko dal yëpp dal ko foofu waaye su fekkoon ne tey Medina la nekk. Alfayda FM bi Daaru Xilaaf ngi Medina. Medina gii nag leen di toog leen Medina lépp na leen fekk. sëñ Aliou Cissé la ma su dikk fekk la fi ku dem bay la maa ngi koy gërëm coono ñu ba tey. fi mu ne nii nag waxoon naa ko sëriñ Mbaye Niass nañoo fekkee si jotaay bi waxoon naa ko sëriñ Aliou Cissé toogal añ sax añ añ ba añ ci kër gi ñoo leen ñoo leen ñoo leen fekkee si naa waxoon naa ko waxtaan ne ngeen maa ko yónni bind naa téere ci sa loxo yónni naa ko waxoon naa ko sëriñ Ibrahima ñoom ñëpp bind naa téere ci sa loxo ma wane leen Kóolaa ak Dóomu Dóor ñu ànd ko bii ñun ñëpp dañoo dem daanaka maanaam ak sëñ Mame am na ñëw am na ñëw gis naa leen ma ñëw ñëpp woo naa leen dogal naa leen itam bind naa teel rek seen loxo ñoom ñëpp xam nañ ko kenn ku nekk xam ko te woo naa leen ñoo fekk si te toogal naa leen xañ loolu la man loolu la man buñ ko defee. def nañ sataaf bu ñu ko defoon man banaa Ibrahima moom toogam buñ doy jógee ci toogaay bi te defuñu li ma wax nii nañ xam ne man maa fi nekk li ñàkk bopp rek di benn jël boo xam ne dama la amul njëriñ kaay leen mi dugal leen aljanna loolu yonent waxoon sallallahu wa weex naa leen topp ku ñuul doo leen topp ñëpp leen gar aboo ko wax ko gaaw léegi mu teg ci fukk fukk fukk loolu mu ko laa ilaha illa rasulullah laa loolu laa laa tey daal waaye yow moom da ngaa bëgg ne yàlla yi ñu xamee juróom ñetti téeméeri yàlla ak juróom nga dem li ñu woo ci benn yàlla ah li kéem tànn ajaa laa laa tey daal waaye sa la si woon fa jàpp ñu ne ko loolu kéem tànn waaye loolu laay wax leen ñu dellu ci bàyyi ñëw leen ñu jiital muqaddamam yi ñëw leen ñu sukkandiku ci ñoom ñëw leen ñu wàcci leen ñu liggéey ñëw leen ñu jiital leen ñëw leen ñu di leen sant liggéey léegi ñu ngeen dajale bi téeméeri milliard téeméeri milliard xajul milliard xajul milliard maa ko ci benn at bi la laa leen ko jox te du ma leen wax daanaka topp leen waxi bàyyi xam nga fu bàyyi génnee xaay xaay boobu daf ne dama bëgg a xam taalib yi ak soppi ñaata yi foofu nag ngay xamee yow mi jànge diggante bii dafa bëgg a moom waxul xaaral xaalis de. Alfayda FM ndax boo bëggee xam ni ñi wax leen ne ku nekk na joxe nangam rek ñu bind sa tur rek léegi nga xam nit ñi mu toll boo paree rek téeméeri milliard rek fii di def laa koy na teg million koy na teg lii ñu dem ba ñuy dem réeré li ñuy def ba doomu bàyyi boo xam ne dafa war na toog yow yow hadiya defal ko li bëgg moom muy dax muy muy joxe xaalis mu ko mu ko jox waaw la ko jox dafa baax bëgg lu baax waaye xamul xamul li ñii def ñu ñu ñu dafa mel ni nit ñu ay commerce yoo xam ne dañoo bëgg a seen marché bu dox rek ñu ñu ñu ñu créé rek ne bi fii ko bi jaar moom da ngaa mën a fii ñu ne ñu ko sax ñu ah am na am na benn benn benn société ay nit ñoo xam ne suñ leen mënoon jël ñu lan la ñun mooy antar di seen tëriñ tëriñ dañuy fexe rek ba gëmal leen gëmal leen ne ku ci jaar di taay bi bu def nii seen njiit li moom dafa baax a baax a baax a jàppandi mu ne wax nañ dem ci kooku rek nax ko nax ko su ko defee mu mu mu nangal ñu ne man maa wax nii su ko defee ñu def kay rek seen marché bi rek am bénéfice bu bëri boo lëggee ñoo nañ jaay xara bu gën a fa lëggee ñoo nañ def transport bu gën a fa lëggee ñoo nañ def bëccëg dara du baax dara du baax man de li ma wax de la daa doy léegi de mëtëj bi yaatu mëtëj bi xam nga mëtëj de mëtëj ndege mu jeex man loolu li ma wax naa ne yaakaar naa pare naa ma ma nag bu waxee ba wax ji jeex topp la ñun xaw ma mu waxee ba nga xam ne wax laa nga boole yaa moo moo tëj ko ma ne eh, yéen taalibe yi eh, yéen sopp yi ci baay dellu si leen ci baay baleen li ngeen di def sànni leen ko ci gannaaw bi gannaaw kenn ku nekk na xooyu ci baay nekk ci ronam ñuy jëflanteeg bàyyi ci yàlla te doon wax mu ne nañ dafa àndaaru diini ñi li nag mi lay dëkk Alfayda FM waaye du tarika de doom yi moomuñ ko du tarika maa ko wax du tarika de faylu bi ak àndaaru diini duñ tarika na ci tan na ci doon bàyyi génne tan kal nekk moomuñ ko ma ma ko waaye dem ne Serigne Mbaye maa te Serigne Mbaye mu ne maa leen bindal asaaru din moom seetlu ko moom moo waxoon nag tey man moom la man la bàyyi yow ndigal ci Serigne Mbaye bi kon xam naa àq ci waxlu fi mu ne li may wax noonu wax bu leer la dama gëm ne lu ma wax te ku ma contrôle rek bàyyi nga contrôle ci loolu man de moom waxuma dara de man benn béykat la boo xam ne rek duma dara waaye yàgg naa taxam yàgg naa fecc yàgg naa wor yàgg naa kisaati yàgg naa def lépp lépp jàng alxuraan ba wattu ko mën alxuraan mën a bind jàng ci Seex Tere Mbaye kenn musuma wax bil ba a ak Seex Tere Mbaye moom moo ma ko jàngal ma tegu ba mm, mm, sëñ Mbaye dem bàyyi yow ma ndigal ni ma toppal fii ma am na bés baat yoo xam ne parce que ku jëm ci yàlla dañu ko sànni waaye yow benn tànn doo ci jëm loolu doy na te itam benn bés mu fekk ko gërëm li jeex mun na ko wax tuuti baay li mu réer Ibrahima Ñas ni mu tuutee nga xam ne mutul sax yoo mutul mutul mutul kenn ko mutul mutul peese dara waaye bàyyi naan ko yow yaa def naa ne gis bi ko xam nga lu tax kóllëre mu joxoon sëñ Mbaye joxoon ko moo tax moom kon nag du ma wax dara dara dara dara dara lu ma nañ ko déglu nañ ànd ak moom waxuma keneen nag ko ma wax koo dégg nga wax naa ko rek dama tooñ waaye waxuma dara lu ma nañ topp bàyyi nañ ko déggal nañ ko dimbale ay waxam lu mu bëgg nañ ko def léegi léegi léegi ci coo xam ji mat na dajale leen léegi fii téeméeri milliard léegi balaa may jeex kon ne ñaar téeméer rek laa ko wax jigéen ñett jigéen benn téeméer muqaddam yii ñoom lay wax ne dajale leen dama bi compte boo xam ne commission lay doon kenn du mën a jël xaalis bi lu mooy dañoo taxawal ansaru diini kii mooy njiit li ñu boobaa su boobaa ki ñu ko fal mooy signé pour xaalis bi génn ah Madina dootuñu wuti dara dootuñu dem fenn kenn ñu leen yëpp luñ soxla dara luñ bëgg mu teew ci seen bekk luñ soxla mu am luñ santaane taal bi def ko lu ñu wegg leen bëgg leen. ragal leen Alfayda FM lu mooy loolu mënta totti lu mooy loolu mënta topp lu mooy loolu mënta totti waaw. maa ngi nag maa ngi ci lii wax maa ngi leen di ñaanal wax ji ji jaadu ji man fi mu ne nii sama matin bi taxawoon man da ma bu ma bu ma doon wax dafa am ku doon wax ci man kooku nag dafa mel ni mm, dëggatuma waxam ji dëggatuma ko waaye dafa mel ni mënat bi jàll léegi nag ni ñuy dëkkee ni ñuy dëkkee ci àdduna bi ma dénkaa ma dénk ko ñun ñoo nguur gi ñoo bokk dëkk ci yow ñun ñoo état bi ñoo bokk dëkk ci yow ki ko jiite mooy mm, président bi ko jiite mooy mu tudd moom lu mag yu sal moom du makki yu loolu ñun ñëpp nag banankaal topp ci kawam di ko déglu waaye daqul ñoo jàng ëpp ñu ay bokk waaye nag nit ñi ñoo dajee ne ko xóolu nañ la lañ la xormaal lépp loo wax dañ ko jéem duñ la xas ci mbëdd duñ la weer duñ la def dara su loo wax danañ ko gërëm waaye yow na nga xam ne ay nit ngay jëflante ay nit ngay jëflante ay nit ñu am xam-xam ay nit ñu wóorule ay nit ñu am bopp nit ñu nangoo liggéey nit xam ne bëgguma nag maa ngi ñaan réew mi yëpp yëpp yëpp bu kenn toog di wax naan président bi lii la président la nit ku ñu woteel ba mu toog ci bopp réew te réew maa ko woteel ko a xormaat kenn du taxaw di ko wax ne jaaduwul ak ku mën a doon man maa ngi lay ñaan rek nga xormaal ko teral ko boo koy wadi itam wadi ko ci boo ko weddi nga ñaan audience dem si moom nga ko nangam nangam nangam waaye bu takk ci rajo di wax nit loo xam ne jaaduwut mu amee ay bokk am dëkk ci réew mi te ni ñu wax ñu wateel ko weddi ni ñu baax ñi la weddi sa bopp la te bu ëllëgee bu sa mbokk faloo dootul ko wax noonu ànd leen ak maa loolu laa leen digal utuma ci moom dara nag ci bàyyi lay ut dara bàyyi si yàlla soo ko may waaye dama xam ne ma woote ma sa yow ma contre ko moom moom nag bu xewoo moo bindee leetar bu ma ñaanee audience bu ma woo ne bu bañ man xam naa ne bàyyi laay jëflante waaye damay xam ne kii dafa xamut gis nga ay président jaar nañ Abdou Diouf fekkoon na fi ñun ñëpp xam nañ moom Abdou Diouf moom moo doon def boo ko bindee leeral rek léegi mu tontu la Abdou Diouf moo ko bindee leer léegi mu tontu am na président yoo xam ne loolu la ñu def ba ma ko bindee leer ne ko soo defee nii def nii def nii réew mi def naa ci jàmm fa waaye du ma ko tudd xaajal Tamba defal nii defal naa di ma soo ma joxee euh, ndigal nag fu ñu dajee ma yow danaa ko défendre li ma la wax muy dem ma mu tax mu mu mu ne tontu ma ne ma jox naa la audience ajjuma ci quatre mu ne ko du ma dimbali ma maa naa sa ma ñu ko mosoon a jox jox audience ajjuma mu ne mun maa ñëw waaye sa war mu ne politique la donc ko waxee loolu mu ne waaw li li ñu bëgg a am na so solo soo xam ne dafa dama lay laaj dafay laaj ñu jóg la hélicoptère avion boo jónni avion ba pare nga dugg ca ñëw ñu toog ñu ñoo si dafa mën a politique xam ne leer mu julli jumaa dem ko woon ci hélicoptère bi dem waaye bàyyi moom ñoo ko sa jëlee xaw ma ñu mu ne ko waaw wala ab patron ngi nii patron fanta bi nag ñu ko ba mbaax dafa jaay say jaara ma ne waaw boo bëggee nga julli alors bi ma ne ko ñun suñu diine dafa am laaj bàyyi ko suñu diine dafa am yoon tusubaar lu def te moom moo tax ba fi ba moom dafa julli jumaa keroog def ku nekk ci yow mi war ngaa xormal bàyyi dafa xam dafa jub te dafa maandu dafa xam te dafa jub te dafa maandu kooku yàlla ñu ko yàlla fayal adduna bi yëpp lu wër na ko te mu ngi juddoo fii ci seen te mu sa wax baat ñu ñu teg ko kon nag maa ngi leen di jéem a bi fi mu ne takku sax jox naa maa ngi leen di ñaanal yow maanaam mbay mi mbay mi yàlla ci yàlla débarka ñun de xam nañ ne ren kenn mënta bay lu may yàlla ñun xam nañ ko yàlla taw na lu ko neex tawee na nu ko neex nit ñi dem nañ ba xam ne am na ci sax ñoo xam ne dañoo xam xaw xaw lu ñu def ba nanguwuñu du baax waaye dañ ko rëccu tëppal mënoo taw mënoo amoo suuf amoo jiw amoo amoo alamaan bayal bay leen sant yàlla moo mu ne wa fi sama risquum seen wërsëg mi ci ko asamaan moo ko moo ko wax te nit ñi dund ci àddina bi yëpp yëpp yëpp yëpp wat baykat yi di dundal ah bu fi nekkee nag ci seen taw koy seen climatiseur yi seen wétu yu rafet yi seen bon yi xam ne xaalis bi nga xam ne du mag gi tax ngeen fàtte baykat yi na ngeen fàttali ko ne yi baykat yi ñoo leen dimbale baykat yi ñoo leen dimbale ñu nekk ci tawko yi yéen ñi nekk ci pale yi yéen ñu nekk ci Kilimanjaro yi yéen ñi amee xaalis bu du jeex na ngeen xam ne mbuus du def la ngeen topp mbuus du def la ngeen topp de lu ne waxtaan waxtaan waxtaan damay damay toog mu yegg rek mu ne dama clip fooy lekk béykat yi kenn mënta kenn mënta woon mën naa du ma du ma lekk lu bay luñ bay kenn mënu kenn amul jiwu ndox kenn mënta taw lépp ci loxol yàlla mooy taw ca waxtu wu taw mooy taw ca waxtu wu taw moom moom fufam mooy saxal gàncax ci yàlla topp leen yàlla bu leen yaakaar ko mooy yàlla bu leen tooñ bu leen dimbale li ma ci teg li ma ci waroon teg nag mooy salaamaaleykum wa waaye maa ngi loo ji waxtu yoon na waaw su fekkee ne xam ne lii def yaakaar naa ñëpp am ñu jàpp ku ku ku ak julli yu mel nii war nga cee bàyyi bu ñu juróomi ñoom fukki itam ñu dem wàcc lislaam ku ci dem da nga war a wàcc boo amee jërë nga ko war a sangu boo ko amul war a tiim te nga a war a fa maanaam tey jógee ñu sappi sappi su jub su rafet kenn ku nekk xolam def ko bàyyi ci yàlla ñu liggéey xëy na ñëpp yàlla yàlla baaxal tere bi maa ngi ciy ñaan yàlla laa koy ñaan yàlla yàlla yow yaa amee bi yaa moom nit yaa moom baykat yi ba nga tawee ñun bay nañ def nañ nuñ man waaye bu ñu seetaan mukk mukk mukk mukk ñu tege ci loxo yi ñi nga xam ne kenn ku nekk dafa dee kontam te la bëgg naa maa ko ci loolu dimbale ñu yow dimbale ñu bu ñu seetaan baykat yaa ngi nii dara amuñ ko dara amuñ ko te yaakaaruñ kenn ku ma yow yàlla nga ñuy dimbale yàlla nga baaxal tali bi yàlla na gaaw yàlla na saret bi gaaw yàlla na gaaw yàlla na yàlla na yàlla na prix bi baax lool. am xaay bu doy yàlla na xaay bu doy te yàlla nañ mudoo xaay bi parce que yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam parce que moom nag Ibrahima barke yoon ci yàlla Murtala Ibrahima barke Mawlana Seex Ibrahima barke suñu sëriñ sax dañu bayas loolu te laay ñaan maa ngi koy ñaan daa iman maa ngi koy daa iman maa ngi koy ñaan daa iman juboo leen déggoo leen ormalante leen yaakaar leen yàlla bu leen yaakaar ku ma yàlla dimbalante leen bu leen tool bu leen dumale kuy tool asalaamaaleykum wa rahmatullah